bismillahi rahmani rahim alsalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin saydi alwujud saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jullit yi bokki taalibe yi kilifa yi fi ne ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu xaq di leen bal xaq di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal di ñaan ku fi ñëw ku ne tànk yi la indi at yi lay delloo yàlla na ko suñu borom bi def ay jéego ci àjjana di leen ndokkal it ci guddi gu tedd gi nga xam ni ki fi jóg ki ci gañe àdduna lu ñu am àdduna ak allaaxira mooy sabat bi muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy nuyu sëñ Xaadim Mbàkke mi waral bés bii di ñaan sunu borom bi mu yàggal ko fi te wéral ko ndax mbir mi yàgg na ndax xam nañ ci dara ba ñuy ba muy tàmbali ci la ñu nekkoon di taxawal guddi gii te boobu ma nga ca université ba di jàng ñu bëgg waxtaane suñu diine lislaam ci borom guddi gii nga xam ni kenn umpalewul jamono ji li fi xew ñu sànni ci ñaari baat rekk muy lii ñuy wax ay caricature yàgg na ci lislaam dessin amul woon waaye caricature ci làmmiñ par le discours masu fee jóg ndax yéeféer yi ak ñi nga xam ni ñoo leen di jàppale yàgg nañu teg ci deru seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay safaan waaye dara masu ko cee taq ndax bi ñu nekk yaa ayuha allazi alayhi zikra innaka la majnunun benn caricature boobu yow mi nga xam ni yaa naan yàlla dafa wàcce ci yow zikra muy alquran innaka la majnun yow de àndoog sa xel yow de dof rekk la caricature ngoog waaye suñu borom di ko fi yónni muy yonentam di yonent bi mujj yónni ko ci mbindeef yépp ba ba saadi taxaw daf ko xamal ni doo tontu ndax li mal yan bi nga yanu ton ton te xaju ci wóoluwuma ci malaaka wóoluwuma ci kenn sam boppama ci doy maa lay tontu nuun wal qalami wa maa yasturuuna maa anta bi ni'mati rabbika bi majnun suñu borom mel ni ko yow kay ma soo nekk dof doo nekk dof ba fur loolu rek doyoon na bi nga xamee ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi dugg ci kaaba gi dajeek al-Aasi ibnu Waa'il di génn ñu daje sànnente ay kàddu fekk kilifa yéeféer yaa ngi ci biir kaaba gi toog ñu dégg leen waaye dugg ñu ni ko waaw yow koo doon waxanteel ma am man tataxaddas kan nga doon waxanteel mun leen xaasal abtar dog pet te boo fekk na doomam ju góor ju mu am ak Xadija radiyallahu anha nelaw mu tiis lool ñu tudde ko nag abtar mooy ku ku ku dudd ba dem doo fi bàyyi doom ju góor mooy doppet sa gannaaw dara dootu ci am suñu boroom bi ba tey ni ko doo tontu de inna shaani aka huwal abtar ca sóoratul kawsar yow kay doo doppet ndax ku la gëm ba ba saa di taxaw yaay bàyyam say soxna ñooy seen ndey soxna Aïcha bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ans la am fukki at ak juróom-ñett waaye kenn mënu koo denc ndax mooy ndeyu ñëpp ba am soixante-trois ans soo ko dem mu ko kon nag yow doo lab doo ab doo dog doo torox te kenn du la xeet inna saani at kooku ibnu waay rek moomu ko ba ba saadi taxaw képp ku noonoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp bi suñu boroom bi boole na la ca loolee inna sha ni aka huwal abtar ñi la bañ ñi la noonoo ñoom ñooy dog pet daanu jaar àdduna ba dem duñ fi bàyyi benn tras torox àdduna torox àllaaxira ñooñu kay ñooy abtar loolu nag ñu tegoon ci deru yonent bi sallallahu alayhi wa ba léegi ñooñu tekkee gulu seen ngem mooy caricature yi ñuy wax waaw soo caricaturé nit lu day na seydina muhammad sallallahu alayhi wa ku gëm yàlla nekk ca turki ni la yow kat àndoog sa xel dal laa war a faji Europe yépp jóg taxaw ni lu tax mu wax ko yow caricatural yorent bi ndax liberté d'expression la kenn yow da dof war na laa faj nga mer xanaa loolu dul liberté d'expression liberté d'expression kay xanaa foofu foofu la gën a kon nag liberté d'expression bi yépp mooy na dal ci kaw yonent bi na dal ci kaw lislaam waaye su dalee seen kaw dootu liberté d'expression xaste la tudd loolu la lay wax complexe de supériorité bi nu am moo leen daaneel ba tey Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu nga xam ni jamono ji ñu def moom tiir groupé la ñépp ko songandoo songandoo yoon wi ñépp mais du tey maa ngi fàttaliku 1980 booboog léegi bare na ñu nekk ci tànt bi judduwulu 1980 bi larte gi bindee ca Paris di écrivain di borom xalima di grand reporter ndomba yépp ñu takkal ko bu dal ci kaw tariixa yi ci réew mi ni Sénégal dana dem ba mel na limaam ndax ay secte fi nekk secte secte moom baaxul ay secte fi nekk ci libaan lay mujje ay secte yuy xeex ci seen biir ba réew ma yàq loolu la larta gi bindoon wax jaar yi wax murid yi dal ci kaw Cheikh Ahmadou Bamba ñépp jóg taxaw maa ngi koy fàttaliku ndawe wuñ ko bi coow li bare ñii di mbëkk miir yi ñii di saaga ci journaux yi sëñ abdullah radiallahu anhu woo rajo bi ba mu ñëw asalaamualeykum mbokki jullit yi koo kii bind loolu ci sëriñ bu mag bi ki muy wax du sëriñ Bamba ki muy wax du sëriñ Bamba sëriñ Bamba nag xuloolul xulooloowul kenn xeexloowul kenn mën na kanamam mën na gannaawam dem leen jaamu ji yàlla te liggéey bés boobu loolu la sëriñ Abdou Lahad wax sëriñ Bamba mën na kama kanamam mën na gannaawam mooy lii xew ci réseaux sociaux yi jamono yi ñooñu ba léegi ña ngemboon ñee rek ñoo leen ngemb ba tey waaye ndekete Serigne Ba maa ngi tontu si c'était en 1980 sëñ Abdou Fatah Mbacke Gaynde Fatma yal na ko yàlla dolli leer bés boobu moo jël xalimaam. wane ni il fait partie des plus grands intellectuels du Sénégal bés boobu moo tontu larte gi ba mu ko tontoo di ko Sénégal du libaniser mukk waaye du caddiser yi mukk du mel na Tchad du mel na Liban ni ko nag li ngay yéene mooy diine ji tas ci réew mi mënoo ko am ndax cohésion sociale bi ànd bi nit ñi ànd ñooñu ngay wax secte du ñu ay secte ay tariixa la ay confrérie la ñoom ñoo def réew mi muy benn muy tiijaan murit ak xaadir kenn mënu leen a yàq kenn mënu leen a tasaare sëñ Abdou Fatah Mbacke Gaynde Fatma moo ko bind radiyallahu anhu su ngeen tàppee ba léegi google def larte Lartegui Jean Lartegui teg ci murit su leen neexee ngeen yokk ci sëñ abdu Fatah Mbacké